am na sax ci jaami yàlla yi ñoo xam ne benn pakk rek bala ñu ko weesu daañu ci am juróom-ñaar fukki at te sax duñ mën a weesu benn pakk boobu nga xam ne ñu taxaw di yuuxu di wax naa ci yoon wekk lëndam ci yoon wekk naqare aw nee nañ am na ci ñoo xam ne danañ ci am juróom-ñaar fukki at am ci ñoo xam ne bu ñu amee ñaar fukki at daal di weesu pakk yooyu am ci ñoo xam ne fukki at am ci ñoo xam ne bu soobee yàlla ay weer rekk am ci ñoo xam ne ay bis mbaa sax wenn waxtu niki jabarkat yi Firawna ya diir bu gàtt gàtt rek bañ gisee la Muusaa def ñu xam ne lee du ak njabara moo gisa la ñu daldi gëm fa saasay saasa nga xam ne ci wenn waxtu wi dañoo nekkoon di ay jabar fi saasa wëlbatiku di gaa yu baax yu ñu tànn tànn ni yàlla defee siraat ca alaxira nga xam ne ñenn ñi dañ cey gaaw lool mel ne melxat ñenn ña gaaw ba mel ne ngelaw ñenn ña gaaw ba mel ne fas ñenn ña di batu ñenn ña raam ñenn ña buñ mën a jàll lañu far daanu foofa di seen kër noonu la dogale yoon yi nga xam ne mooy bëre bakkan ak jéggi ay pakkam nga xam ne kon yàlla moom ci coobaram rekk lay taw fi xale jaam ñi na mu ko soobe fal istixaalu soxlawoo bi dawaa bi dawaa ihaa ci saafara caay caay yooye abaran faw min baadi maarifatihaa ci gannaaw seenu xam yoo addu def na ko lim waaye def na ko konte fardan muy farata nee na fexe ba xam say sikk muy sikki bakkan yi taxaw tem itam ci faj ko ba wér loolu farata la ci jenn jëmm ju ne waxiya moom xam nga caay-caay ya ba noppi nag taxaw ci faj ko min enzomima bokk na ci gën jaa màggi la nga xam ne xabdun ab jaam raama sàkkoona bihi ci moom iqtiraaba rabbihi jegeñ boroomam fanta bi na nga yeewu fexe ba xam sikk yooyu te taxaw temm ci faj ko bokk na ci xeeti jaamu yàlla yi gën a màgg yi nga xam ne mooy tax yàlla may jaam bi mu agsi ca moom ndax suñ boroom moo ne wallazina jaahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ak wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa wastafidan na nga sàkkoo jariñoo xirfaanaxaa seenu xam yaa saax yu sama àndaale bi suxbatil mashaayix yi ci ànd ak sëriñ sa an musaaxi ña di way laabiir aw bi musaaxabatil astixaay wala ci àndaaleeg xarit ya awil muxaalatati wala jaxasooga wala axdaay ak noon ya soo bëggee xam nag say sikk mën koo xamee ci ànd ak sëriñ si nga xamee ne dox nañ ba àgg ci seen boroom yàlla xamal leen lay tax a maneeg moom ak lay tee maneeg moom ànd ak sëriñ soosu na tax nga daal di xam say sikk te ñoom sax ñoo la koy fajal fi saasa bu fekkee ne daal gis nga sëriñ bu demee noonu moo gën a gaaw ci tàggoog sikk yi ba tey nag boo amee xarit te xarit ba nekk xarit bu dëggu te amu xàmmee ba tey du la nëbbu say sikk la mu xam ci yow ci loo xam lay lor la sa diggante sa borom du la ko làq daan la ko xamal ba tey itam jaxasoo nit ñi dana feeñal sikk ndax am na ndax dafa am ci sikk yi xeeti sikk yoo xam ne li ci ëpp ci jaxasoo lay feeñee bu dee jaxasoo nit ñi nag te yéene ca xame ci sikkam ba faj ko loola kon baax na dañ ko cay fay tuyaaba rawante na nag muy jaxasoog ay noonam noon yi moom bu jaxasoowut ak ñoom it tey déglu la ñuy wax ci moom rek dana ci xame ay sikkam ndax noonu li ci ëpp day gëstu sikki kamu noonu te di ko wax boole ja su ko defee nag mu bañ a mer ca loola te jàpp ne yàllaa ko xéewale xamal ko sikkam rek muy jéem nag di ko faj su mat dowaa u topp saafara sa jumlatan mbir mu muy mbooleem mbaa nga ne jumlatan ci ak bëbëstal maanaam ci gàttal huwa moom arrujooxu moo di dellu ilaa ilaahina jëm ci sunu buur taxalaa kawe na bil xusuuxi ànd ku ragal kama rujooxu ka nit nga xamee ne sag dellu li rabbil kal bi jëm ci boroom xaj ba yakunu dana nekk aw laa di gën a yey min xanaa it dar bi ci coonab dóor ga mu ne nag saafara si gën a gaaw nag ci saafara sikki bakkan mooy dellu ci yàlla torox lu jëm ci moom ñaan ko mu tàggale ko ak sikki bakkan yi ndax moom yàlla rek moo leen boole bu leen tàggale rek ñu tàggoo te it daa mel ne xajub jaambur bu ànd ak boroom song la nga wax boroom xaj ba mu téyib xajam rek nga noppalu ja moo gën a noppale jekki di jàppanteeg moom amaana mu xotti say sér amaana sax mu gaañ la kon ne boroom rek dimbale ma téye sa xaj bi mu téye ko moo gën a noppale di jéem a songoonteeg xaj ba wa minhu bokk na ci saafara sa sidqul mar'i dëggaluk cam sa fil mujaahadati ci jihaad ga bil jooxi ci ab xiif liqtinaasi xayril faa'idati ngir rëbbu ngën ji njariñ ba tey nag bokk na ci li ñuy saafara sikki bakkan sikk soo ci xam rek nga faje ko safaan ba mel ne bu xamee ci boppam nay mu koy saafara tabe bu xamee ci boppam ak bëgg àddina mu koy jéem a saafara dëddu àdduna lu xam ci boppam ci sikk rek seet lay safaan ba mu koy cee jéem a faje waaye nag la jiitu ca faj ma dëgg-dëgg moom mooy ñeme xiif xiif boo xam ne daal day diggu doomu du ëpp ba muy tëlbati ndax bakkan moom dafa ragal xiif su ko dee faje xiif rek lu bare bare ci ay caay-caayam moom bakkan bi dana daldi wàññiku nee nañu bakkan mën naa jëm ci mooy te boo nekkoon ay waay ji bakkan tin ma di ko liwaayu ci baaxu yàlla ak baaxu yonante bi mbaa baaxu gaa yu baax yi ci des ba sax nga wan ko dee mu mel ne lu taxaw fi kanamam mbaa nga liyaar ko sawara yooyu yëpp mën naa am du ko tax a bàyyi mooy googee te boo ko xiifalee rek pi saasa mu daldi bàyyi mooy ga wa man xonaa ak sunu tere an nafsa bakkan ba minal lazzaati ci ay bànneex wa shahawaati ak bànneex kullama awqaatin ci yépp waxtu bokk na ci li ngay saafara bon boni bakkan ngay xañ sa bakkan lépp lu muy bànneexoo ndax jamono yi muy wut ngërëmul yàlla moom bu xañul bakkanam la muy bànneexoo am ngërëm jafe ko gannaaw bu amee ngërëm nag moom xeeti bànneexu ci lekk wala naan wala tëdd fu nooy du tax mu wàññi ko dara ndax gisatut lu may yàlla bi xamli asqaalil ibaadaati ànd ak yenu diis diisi jaamu yàlla yi bokk na ci ñi saafara sikki bakkan suuf ko xeeti jaamu yàlla yu diis a diis ndax seetlu nga ne xeeti daaba yi nga xam ne dañuy cëppi cëppi bi leen liggéeyloo liggéey yu méttee métti rek ñu wëlbati ko nooy lool mel ne mosuñoo jaar ci jàgg akuk cëppi cëppi bakkanit noonu la mel boo koy sëf xeeti jaamu yàlla yu diis yi te bàyyi rek day mujj nooy te daa niki nii suxbatu ahlil xayri àndaaleeg ñooñ yiw min ajli ihtisaa in ngir ak roy ba tey ànd ak gaa yu baax yi ndax mën a roy ci ñoom dana taxa tàggoog ay sikki bakkan koo àndal lu yàgg rek mu def ci yow jeexit moo tax ñu bëgg ngay ànd ak ku baax ndax ak mbaaxam wàll la kon ànd ak ñu baax ñi dana tax sa xol defaru dana taxa bokk ci ñoom jikko des koy sàcc maanaam boo ànd ak kenn rek lee nga jël jikkoom te doo ko yëg wala moo tax ànd ak ñu baax ñi nga roy ci ñoom dana tax sa bakkan set ci xeeti sikk yi wa ak lu naa ak sunug lekk min atyabil xalaali ci gën jaa teey aji lew laa shubhatin du caagin am lant aw riban wala riba aw iskaali wala ak lant ba tey bokk na ci tax nga set ci sikki bakkan yi nga fexe ba looy lekk rek ak looy naan ak looy jëfandikoo rek muy lew doomu ndax boo jëfandikoo lew moom faaw rek lu baax ngay jëf di moytoo nag jëfandikoo lu lënt baalu araam nit ki di baax ndax loo lekk rek lu mel noonu ngay def moo tax mu naa yaa saax yu sama àndaale ku lekkal maashi itam la soob tafxal kon nga def mis la am kemam waxaa li lan te nga xay toog man si te ku la soob taxadu kon nga xëy chek la di am kemam mooy di moroomam lekkal la soob te xam ne lu mel noonu rek ngay def boo lekkee lu araam faaw nga def lu araam boo lekkee lu ñu sib faaw nga jëf lu ñu sib boo lekkee lu lënt faaw nga def lu lënt boo lekkee lekku caaxaan faaw nga jëf jëfi caaxaan muy wéy rek ba tey xaritoo la ku la soob te xam ne yéene yam diine na ko addis ba waxee foo gis ñaar ñu xaritoo mën nañoo tàggoor dañuy bokk ay mbir moo tax sa xarit bu dee ku dëgër diine xamal ne kon yow ku am diine ju dëgër nga waaye bu dee ko yef diine itam yéeneyam da nga di ko yef diine wa min dawaiha bokk na ci seen saafara ñoom caay-caay yooyu al firaaru daw ga min jamihi madinati dambi ci mboolem jortuwaay bàkkaar li muhtadin ñeel aji jub moo tey hin koy aji topp ndax salaamatun mucc min hinda ci hinda ma ahliha ànd ak ñoñam an laa taxilla moo di nga bañ a wàcc ak dëhëra ci jenn jamono fii waa diihaa ca xuram wa bokk na ci saafara sabakan fépp foo xam ne yaakaar nga ne boo fa demee doo mucc faaw rek nga def fa bàkkaar mbaa jikko ju bon mbaa sikk su bon toppe la fa rek nga fexe bañ a jege foofa di ko daw kem sa kàttan ndax jongo ma boo ci bëggee mucc moo ko ay gaayam da ngay bañ a dem ci këram bañ koo jege waaye boo xasee dem ba ci këram nag moom mucc ca day jafe ba tey xeeti sikk yi nekk ci bakkan ak xeeti bakkaar yi noonu la mel booy nekk ci béréb boo xam ne am nañu amee sikk yooyu rek ngay jaxasoo ak ñoom mbaa ngay dem ci béréb yoo xam ne dees na fay def lu aay rek ñu yóbbaale la ca loola day daal di yomb lool lool te boo fa sore woon na jegewoo ko rek mucc daal di gën a yomb loolu mu ne salaamatu min hinda ma ahliha da am ku njëkk a wax ne inna salaamata min salma wa jaaratiha an laa taxilla bi waadin xawla waadiha maanaam moom la waxe waxin woowu faslu li ab dog la fi tafsili ba'd ad-dawa'i ci teqale lenni saafara sa wa ba'd radaa'ili ak lenni caay-caay ya donc bii moom day def ba tuddee benn caay-caay xamal la ko ba nga xam ko mu wax la la nga xam ne itam moom nga koy faje bu nekkee ci yow du wax nag caay-caay yépp waaye dana indi yi nga xam ne ñoo gën a siiw gën a bare amma dawa uha ndaal seen saafara ñoom caay-caay bi tafsilin ci teqale fa kana nga jàpp ay li mu ci nam baadaho leen ni saafara sa wa baadaha ak leen ni caay-caay ya bil ishtiraaki ci bokkaale mu ne kon naa la wax yenn caay-caay yi te wax ko benn benn bu ma ci wax rek sësale ca saafara sa nga xam ne moo koy faj fal kibru rëy en obsamur rada ili moo gën a màgg ci caay-caay yi maanaam daal moo ci gën a rëy jami xan boole seen li annahu ngir naka moom yàq daxu dana jam fii diinil motiyen ci diine aji topp ja waxee ruxoo kudul moom minal bawaax yi ci way des yi in xasala ndem am na itam fa innahu naka moom yoojibu dana waral xaddaxan ak jam fil xamali ci jëf ja day njëkkee caay-caay bi nga xam ne moo ci yées moom nee na mooy rëy li tax nee na rëy moo yées ci mboolem caay-caay yi mooy moom day day buddi gëm sànni ndax rëy ci boppam day cërub yàlla nga xam ne ku rëy rek day mel ne day yootu cërub yàlla day mel ne kon jëmmi gëm ga ak pas-pas ba ci boppam ak yootal gëm yootaloon yàlla moom la rëy ga di yàq daga moom nag cosaanul diine muy gëm moom la yàq te ku bokkut ak moom moom bu amee itam jëf rek la yàq waaye lu yàq jëmmi pas-pas loolu moo tax rëy yées ci yëpp yëpp bu mel ne ngistal def te yàlla taxut wala naw jëf yooyu yëpp day yàq jëf rek waaye du yàq jëmmi pas-pas ci boppam nee nañu sax rëy dana tax du kooka tolloo ci di génn àdduna yàlla rekki gëmam mu faatuwaale ak kéefër wa minhu bokk na ci rëy doona ray benn ci lu benn sikki sàkk alxayaaw kersa aani danaa jublu at tabiiya kersa gay ko jug jikko kersa ci boppam day lu ñu tagga tagg ba wax ne kersa du indi lu may aw yiw waaye nag nay kersa goo xam ne diine ak pas-pas da ko lal loola mooy lépp lu yàlla bëggut mu rusu yàlla ba bañ koo fas bañ koo wax bañ koo jëf waaye nag kersa goo xam ne moom tabiax yu la ko jug jikko la moom ci xeetu rëy la bokk moom nag nee nañu lu bare bari la ci takk-takk bi nag saa yoo xam ne kersa ga tax na koo bàyyi ndigal mbaa mu tax ko def lañu tere rek kersa googu ak rëy la saa yu kersa gi doxee digganteem ak def lu baax rek mbaa kersa ga tax koo def lu bon rek kersa googu kon ak rëy la waaye du kersa ga ñu tagg mel ne fu ñi mooy yàlla murus bañ caa bokk ca mooy yàlla ga ba tax mu bokk ca mooy yàlla ga loolu ak rëy la lu baax itam ni ki yëkkati kàddoom noddu wala yëkkati kàddoom tudd yàlla wala yëkkati kàddu waar mbooloo ma wax leen lay dëgg wala rus ci digle lu baax aay lu bon mbaa am lu ëmpale ci mbirum diineem te rus koo laaj yooyu yëpp ak rëy lañ koy jàppee kazaliki ni al ixfaawu nëbb ga lil xaq ñeel dëgg mis la raddihi kem ak delloom bokk na ci li nga xam ne xeetu rëy la xam ne lii mooy dëgg te nanguwoo koo wax mbaa ñu wax la dëgg ga nga gànt ko rëy dinay tax dana xam lay dëgg te du ko nangoo wax mbaa bokk ñu wax ko dëgg ga mu gàntu du ko nangoo wal isdira aku xeeb li ay insaan ñel ku mu ci nit bokk na ci màndargam rëy xeeb kenn ci doomi aadama yi su xeebee kenn kenn ci ñu yàlla sàkk rek ak rëy daa nekk ci moom daax na nga bàyyi at takabbura rëylu jëmmi rëy ci boppam mooy yëg boppam ba nga xamee ne dana ko tax a xeeb keneen mbaa am ku war a jox àq waaye rëy na ba du ko jox àq joojee mbaa mu war a sàmmoonteeg darajey kenn te rëy ba du ko jox daraje joojee nga xam nee nañu rëy moom bu fekkoon ne kenn képp la yàlla sàkk du mën a rëy ndax rëy balaa mën a am day jàpp ni moom ci boppam am na daraja keneen am na daraja te moom nag moo ëppale kooka daraja loolu la ñuy jàpp ne mooy jëmmi rëy su xasee sax nag dana indi dégg-dégg te du ko nangu mbaa mu xam ko te rëy ko wax mbaa xeeb doomi aadama yi moo tax bi saxaaba yi waxee ku baax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko kenn ku ne ci lundey day bëgg ay yéreem rafet ay dàllam rafet ndax loolu ci rëy la bokk mu ne leen déedéet yàlla dadi ku rafet te bëgg lu rafet rëy kay mooy rëy lu dëgg ak xeeb nit ñi qaala allahu jamilun wa yuhibbul jamila walakin al kibra batarul xaqi wa xamsun naasi dawaa uhu saafaraam nag xilmul mooy ak xam bi ànnamaa ci naka la nga xam ne xawaa làq na ko takwinuhu ak amalam minal baraaya ci mbindeef yi fistiwaay nekk na ci ak yemoo dëgg-dëgg rëy moom mooy nga jàpp ne am nga martaba keneen am na martaba waaye yaa ko ëppale martaba li koy faj nag mooy mu wër la ne nit ñi yàlla leen amal te ñu leen amale nenn rek la ñëpp ñu ngi bàyyikoo ci aadama aadama yàlla nga ko sàkki woon ci tabax banu suuf sol ca goro wëlbatiku génne xawaa ci faaruk aadama doomi aadama yi tàmbalee sosoo ci ñoom ñaar te tàmbalee ci toqinu man yu ba keroog ñuy sottiku doon nit ku mat yàlla génne leen ci biti ñu yuddu loolu ñëpp yam ci jaar-jaar yooyu li nga xam ne ci la ñuy gënante muy xam-xam ak jëf ji yiw tax lu nga mën cee xeeb kenn mbaa muy tax nga defee ne gën nga kenn ci ñu yàlla sàkk ndax ndegam sëg mujj xamoo ko waaw ñàkk xam sëg mujj am li rek mu am solo manees naa tàmbaleeg mbaax ak njub mu jële ak dëng manees naa njëlbeenu ak dëng mu jëleeg mbaax loolu moo tax ndegam xamul sëg mujj rek moom doonte amoon nga xam-xam bu rafet ba amoon nga diine ju rafet mu tax nga defee ne gën nga kenn ndax xamagoo sa mucc ndax yàlla dafa am ñu bind ngir àjjana te ñooñu moom lu ñu mën di njëlbéenoo itam faaw ca mujj rek faaw ñu def leen yóbbu àjjana am ñu bind ngir safara ñoo xam ne lu yàgg-yàgg moom lu njëlbéenoo ak baax yi dutee ca mujj ga moom daañu def leen di yóbbu ca kër googee moo tax mu teg ci falasta déet yow yaa ax yow sama mbokk te foox ngay kawe axadan kenn li jëxli xaatimati amrika ngir réere mujjug sa mbir xadan ci ëllëg umpale nga umpale sa mujj rek war naa tax doo jàpp ne am na kenn koo féete kaw ci doomi aadama yi suma waayidullaahi topp tëkkub yàlla ba fi nafsil kitaab bi ci yaxub téere ba li mu takabbirin ñeen aji reylu shadidun aji tar la bil xasaab bi ci mbugal sunu boroom dafa tëkku ci biir alquran ñi nga xam ne ñoo rëy wax ne da leen di xañ xam dëgg gumbaal seeni xol ba duñu xam dëgg duñ ko topp sa asrifu xan ayaati allazina yatakabbaruuna fi l ardi bi xayri lxaq wa in yaraw kulla ayatin laa yuminu biha wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxiduuhu sabila wa in yaraw sabila lxayyi yattaxiduuhu sabila suñ boroom da leen di gumbaal ba dañuy bàyyi fee yoonu jub dem topp yoonu réer ak bam ne innahu la yuhibbul mustakbirin am na fu addis ba wax ne yuxsharu al mutakabbiruna yowma al qiyamati amsaal addar fi suwari rijal yaxshaahum addullu min kulli makaan mu ne ñi nga xam ne ñoo rëy bu bis pencee bu leen yàlla dee pang dañuy ànd melo nit ba noppi nag mel na ay sangaleeñ nit ñi di leen nootee ka dëggaate toroxte di leen bàyyi ko fenn fu ne wax wa moom rëy allazi mooy la nga xam ne ahlaka alagoon na iblisa iblis allah ay na kadi ku ñu rëbbu naxoo bu dana nu muslu min xumaa ci ñoom ñaar bi rabbi naa ci sunu boroom al mooy ni kay aji dimbalee réy day mel na ne mooy bakkaar bi njëkk mooy yàlla ci asamaan ndax iblis ba ko yàlla digalee su jootal aadama mu rëy jàpp ne moom yàllaa ngi ko liggéeyee ci matièru sawara te sawara moom daa leer aadama yàllaa ngi ko liggéeyee ci matièru suuf te suuf daa lëndëm mu ne kon nag maa ko gën duma ko sujjootal topp réy ga mu réy rek loolee ca la ko yàlla alage muy njiitul mboolem ñiy dem sawara mu ñaan nag yàlla musal nu ci iblis ci boppam musal nu ci jëmmi réy itam xadd kunta nekkoon nga xablu ca bu jëkk nopp fatan di toqinu maniyu madiratan buy aji xeeñ wala buy aji sobewu wasirta te nga mujj baaxdu ci gannaaw ba xaamilan di aji yore aji yanu la waaye mooy yore xadiratan ay xayta tumma tasiiru topp da nga mujj jiifatan di am medd xadiratan muy aji sobewu muntinatan tey aji xesaw xabihatan tey aji bon xaqiratan tey aji xeebu doomi aadama bu seetloo boppam dëgg-dëgg du rëy ndax ne njëlbeenam toqiinu mbann yi la bu sobewoo sobewu nga xam ne fu mu taq ñu dindi ko ndax ne sobe la te gannaaw bu nekkee ci biiru yaayam ba judd itam li ci ëpp rek fu mu toll ay xayta mi ngi ci biir nga xam ne bu demee ba yàlla may ko tawfiixi génne ko faaw mu raxas fu sobe si génne woon te du bëgg a jege loolee génn ci moom bu faatoo it nekk medd moo xam ne yàllaa ko suturaal rek ñu raxas ko suul ko bu dul woon nag sutura si yàlla soosu moo medd yi nga romb rek ci yoon yi ak àll yi ñoo yemoo kon rëy wutal nañ ko xeeti saafara yoo xam ne seen si ci xel lay dellu seen si ci yoon seen si ci aada saafara bi nga xam ne mooy dellu ci xel wax gañ waxoon ne doomi aadama bu nekk moroom ma ñoo moo képp li leen yàlla tëggee ñoo moo ne yàlla melal seeni jëmm mbir yi nga xam ne mooy tax nit a nekk nit ñoom ñëpp ñoo ci yemoo nga xam ne kon ci rek ni leen yàlla amale moom ñoom doomi aadama yépp ñoo ci yem saafara rëy si nga xam ne mooy dellu ci seet yoon nag mooy li ñu waxoon ne yàlla dafa tëkk lool ci alquran ku rëy yonente bi tam tëkk lool ci addis ku rëy niñ ko weesoo woon léegi te it rëy nag yi nga xam ne moo ci soqikoo daa bare bare ba nga xam ne neexuñoo wàññi bokk na ca di farala mer wala ñu koy ŋàññ mbaa muy ŋàññ keneen rëy dana tax moom mi rëy ci boppam muy jëw keneen mbaa ñu koy jëw rëy dana taxa amuk coxor dana taxa añaan dana taxa def te yàlla taxut dana tax lu mu def ci lu baax di ko nettali ngir bëgg dara jaag wàccuwaay ak yu bare bare boole ca nag day indi coono coono bi di yem ci moom waaye kuy jëflanteeg moom sax faaw nga sonn ndax am na noo war a waxeeg moom ndax rëy ga nekk ca moom am na noo war a toogeeg moom boo ko doon ganale am na noo ko war a ganalee am foo ko war a dalal muy coono yu bare bare yu amul yemuwaay liy saafara rëy nag tey dellu ci wàllu aada te mooy ñetteelu saafara yi mooy li mu ci wax nii ne nit ku ne bu seetloo njëlbeenam na mu tàmbalee di roqinu man yóbbu sobewoo sobewu gannaaw bu génnee ci biiru yaayam itam di ëmb ci biiram sobe muy xaytaak saw yoo xam ne su génnee ci moom rekk faaw mu aajo war a xas bu faatoo it nekk medd moo xam ne moom yàlla koy suturaal rekk ñu gas ko suul yépp bu ko doomi aadama seetloo rekk daldi sori ak rëy antum yéen ñépp banu aadama ay doomi aadama ngeen fii maa ci la nga xam ne utliqa jooyaleef na ko mooy ci lu amul